mooy alxaaji Mor Gueye sopp na fi yéeneem ci xalifa bi est-ce que waaw ko baax ne alxaaji Mor Gueye sopp na bi ñi muy wéet di leen ñaanal yàlla moo ëpp ñi muy dimbali ci wërsëg waaye dereetam boo ko xoolee ne tariqa Cheikhuna Tidiane Chérif moo ci ne. ne kër maam Seydi El Hadji Malick Sy moo ci ne. ne xam na wajuram Alxaaji Mamadou Gueye li ko yàlla defaloon. lépp lu bàyyam gëmoon. ci kër gi bu jotee. alxaaji moor def ca lu mu man ne barki démb gàmmu ndar bu sëriñ Babacar Si la dafa ne ci ay xat-xat waaye ni sama baay fonke woon gàmmu ndar su ma dugg ndar génnaat dina ko def ndax ni ko sama baay fonk waaye nag mu fonk xalifa bi lool bëgg ko lool yéene ko nag jumaam ji ak bi muy njëkk a dem bi dafa yóbbu ay million man alxaaji Ahmed Mbay mii la ànd ñun ñaar kese ak sëriñ ak ña ko fekk mu yëkkati participation joxe ko ci jumaa ji ne gannaaw gi defaat na ko déggee lu ñuy ne bu déggee lu ñuy yónnee ci télé bi mu yónnee xaalisam. ci loolu. ne yemul ci loolu. di ñaan di ñaan pour ñaan yàlla xalifa bi wér. boo ubbi jumaati amiin yaa rabbal aalamiin. bi mu koy mujjee gis. yàggul lool yàggul lool de. xaal bi mu ko gisee. ne xaal bi mu ko gisee. ba ci li ci poosam yëpp. nga na sotti ko ci kaw xalifa bi est-ce que ne sëriñ bi nag téye ci loxom di ñaan di ñaan di ñaan lam ko mujjee wax mooy yal na la yotti yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam bëggal bopp ne daal ki ñu àndal yàlla boole ñoo moom ñoo bokk kilifa ñu na ni ma bul doy di mukk ndax fi ñu bokk bul fëgg biro kenn ndax fi ñu bokk bul seeti kenn ndax fi ñu bokk gis ngay taxaw Tiwaawan ne waroo doy di nag ci kanamu kenn loolu sëriñ bi alaaji moor moo leen doon ko wax ci làmmiñam ba pare seetaan am na fi de nit dina la conseillé waaye du la jox loo waaye loolu buñ ko waxul woon noppi koy def ne moom alxaaji Mor Gueye sopp na bi jox nañu lu ñu toog yoonu màkk bi ne fii laa toog ci biir koñ bi sama téléphone sonné Idrissa Gueye woo ma ni ma yónnee ma sa passeport ma ne ko lu xew daa am lu ma gént samay gént du hasard ñu kaf mu ni ma alaaji Mor ngi noonu di dem. nee versel na la léegi. 5 millions. 300. 80 mille. da ngay dem Makareen. nee ma toog ba ca kanam. alaaji Mor woo ma wax ma leneen. ma ne ko président Idrissa woon na ma. mu ne ma yow dem màkk day baax ci yow. daal di coupé téléphone. mais soxla wuti détail. soxla wuti ngërëm. bi may dem màkk. moo ma jël. yóbbu ma ba départ ci yoon bi jëm aéroport. ñu départ ci jëm aéroport. mu génne carte bancaire. mu génne carte bancaire. jox ma code. jox ma code bi. ni ma boo demee Màkk. foo mën a ne. loo soxla jël ko foofu. bul jaaxle ci dara alaaji. ma ñibbi si. mu jël si waat ma aéroport. ni ma jënd naa nag. boo nga nalee. lan cay war a dugg. danaa ko jox sa soxna Aysata yow sa yoon nekku ci ngan ki waay yi lii bu amee te ki la ko defal nag su ko neexoon du la ko defal ndax alxaaji moor defal nañu defal yu bare bare bare bu yoonu màkk amul ñu sant ko bu yàgg waaye moo tax barki démb dama ni bi ma egsee dama ne alxaaji moor moom mënatuma laa fay billaahi musuma ko mën de ndax lama ma defal waaye mënatuma ko ndax jure ji mata fal ne loolu nag Serigne Sidi Ahmed si bu sëñ Babacar si Mansour mii laa koy séddee donte ne nag am na lu ci xam dara du xew ci man te duma ko wax ni ma xamee noonu la xamee alxaaji Mor Gueye noonu nit la ko alxaaji Mor ne soxnaa ma ngi nii toog muy soxnaa mi mbeng madame Gueye sànq bi mu dugg see ñoom Diop jël micro yi ku ne di wax lu baax baax na de ne sunu baay bu baax sëñ Cheikh Gueye nag Fatma Gueye doo Fatma ne ba mu toogee ci jataay am kuy wax lu baax benn waay jub daat ni ko noppil sëriñ bi bëggul lii sëñ Seex Mbàkke dani ko bàyyi ko rek mu wax wax ju baax ñaara koy bañ ku juddoom rafetul ak ku yoru lu mu joxe man Seex Mbàkke sama juddu rafet te yor naa lu ma leen jox waaye leen ñu wax lu baax dëgg la ne wax ju baax dara nekku ci ne soxna Ami Meng mii fii mu toog ci kanam nii. fii mu toog ci kanam nii. gënalu ko de. bu soñoon ca gannaaw la jëm. avant ñuy julli la ne ma ah. avant ñuy julli la ne ma ah. ma ne ko ah. yow daal may ma ba julli ba pare rek. wabil xijiri. يمنح النصر واليسرى مام منصور نانا وبالحجر والبيت العتيق وزمزم صفا مروة رب امنح النصر واليسرى وفي قلبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سمام شيخ الحاج محمد المنصور قوة رب امنح النصر واليسرى شوقان شقا موجتي بشرى لنا معشر التجاني إن لنا خير الوسيلة من بين الوسيلات سيد الحاج مالك سمام لنا الشيخ تجان زر أرض فاخر بالله maa ko waroon def maa waroon rangé les chaises yi takk rajo yi gis nga sëñ moom def na ki ñoo bokk ndey ak baay moom moom dafa baax waaw. waaye nekk sa mission maam bi rek yàlla xam na ni maa ngi fanaan gannaaw ñoom rek gannaaw ñoom rek laa fanaan te ñi fay jaar fan yii xam na ni tari bi dañ koo tekki di ko defaraat mu xaw a metti maa ngi yëg sama kër 9 léegi damaa julli tàkk damaa julli tisbaar rek julli tàkkusaan moom mii bi ma koy woo boobu kat boobu ay 16h45 waaye kii suma xarit la nit la yàlla booleeg moom da nga koy assumer man ku mënul assumer suñu diggante boo gisee sëñ bi tax ma jàpp ko mooy képp ku mënul assumer suñu diggante soo ko yëgee soo ko yëgul bàyyi naa la man nañu maslaa nag man sama diggante yow su fekkee dafa am fu mu yem foo ko yemale foo xam ni buñ fa dajee nga wane ni sama xarit la am na foo xam buñ fa dajee doo ko wane moo la ko wax rek moo la ko bàyyi naa man naa la jàpp nii nag muy mas nii nit boo àndee ak moom te muy dëgg da koy assumer amul dara dara dara dara loo xam ne Ameth mës na koo def te amul bis biñ ko joxee bii bi Ameth premier cadeau bu ko doon yóbbu wala muy def dara sax même bu fekkee man ànduma ci dina ma woo ni ma sawaay maa ngi dem nangam ak nangam ak nangam laa am yooyu yëpp da koy def alxaaji Ahmed Mbaye moom sax waaw tur bi yokku na de fi mu ne nii alxaaji fi mu ne nii Ahmed bi sax suñ ko posé alxaaji Mouhamad Mansour lépp ci biir tabaarakallahu loolu daal laa moom seede sama xarit la mbokk gi ñu bokk baayam bis bu ne ma nettali ko dafa am benn jour mu am lu mu def xam nga nag man damaa xaw a tàng tuuti mu am lu mu def ma dal ci kawam dal yu métti mais comme moom dafa yeewu xel mi dafa baax mu bàyyi ma ah, macha allah kii di ma ko cotoo yàlla dee mu ma ba ma daaneel ma yaakaar ni day mer merul de mun ma ah yow de doo ma bàyyi sa dénkaane laa dañ ma laa dénk Pape a def moo te wax na maa ñëw fii yoor yoor fekk sama ndijaay fii ci néegam ñu toog di waxtaan ba ma nar a jóg di dem mu ne ma Serigne Mbaye dénk naa la am na dégg ma koy tool boobu Serigne Diop sadax Serigne Diop moo nekkoon euh, ni ñu ko waxee sax déedéet euh, am na lu ñuy nommer nit ñi te nga xam ne doo wàccaat huit ans ngay kii ah déedéet waxuma loolu médiateur de la république médiateur boobu Serigne Diop ma koy tooñ ma ne ko ndijaay Ahmed moo raw Serigne Diop Ahmed man mii mënuma koo yilif mu ne ma Serigne Mbaye yi du rekk waaye xale la waxuma loolu dama ni sëriñ Mbaye am na ku mën koo dégg incha allahu taala naa ko moom it ma koy doon beneen bi ci des gémmiñ waxul dëgg wax la ca gannaaw dëgg ñu ngi gërëm alaaji Mor Gueye ñu koy gërëm bu baax amet bu ko alaaji moor defalee daal wallahi wa sharafil quran lu ko alaaji moor mës defal moo xam fekke naa ko moo xam fekke wu ma ko ne waa kar ni ma sawaay sama waaji di defal na ma nangam ba ci màkk ji ma ne ma bu ko njëkkul wax ci ñi ma ko njëkk wax nga bokk beneen bi ci des moo di fan yële passé nit da ngay wax lu baax fii laa koy waxee sama mbokk yi am na yoo xam ne yëguñu ko sax ñu may ànd ak ñoom loolu yëpp fii laa toog. jërëjëf waaw addiya Cheikh Tidiane bu ñu ko jënd. waaw Alassane Faye xam nga ko sëriñ maam Alassane Faye <coughs> maam Alassane Faye xaritu El Hadj Mansour la woon taalibe la woon góor gi Alassane Faye bi El Hadj Mansour faatoo ci gàttal daal bi El Hadj Mansour mu ngi toogoon ci njoowaan njoowaan yi daan def. am ñaari jën nii biñ ko fekkee ni ko alaaj Mansour faatu na dafa man kàttan ba mu jógee benn jën bi jën bi samp woon ci njoowaan bi moo fàq ñëw toj bët bi bët bi toj nit ñëw naan bët bi bët bi mu ne ah sama bët bi da gore na moom da yëg na ne alaaj Mansour faatu na sama ruugi kay moo gore woon da ciy topp xam naa sa maam xam naa sa maam ma dégg de xam naa sama am alaaj Mansour loolu laal ci moom xam naa dafa am relation particulière bu ma am ak moom wa sharafal Quraan ci wax sa rak Cheikh Tidiane ma ne ko man feebar sax bu ma ko defee bala maa wér dinaa génn Cheikh feebar bu ma géntee alaaj sopp na bi Mor Gueye sopp na bi sopp gi mu sopp amee sopp gi mu sopp na ko ba fekk ko dëkkam sopp na ko ba fekk ko dëkkam waaw jëllëg ba ñu am dëgg la jumaa ji mu génne alal yu bëri def ko man mii loolu laa doon daaneel la la fan yële passé damaa toog ba ci yàgg Mor Gueye en personne Mor Gueye xam nga Mor Gueye su ma ko wooyee da nga xam te xam naa numéro te pourtant kat seq nañ liggéey bi Mor Gueye day soxla billet d' avion ay billet woo soxla nangami billet d' avion rek leen ma ma jëndal ko liggéey nag ma jëndal ko billet yi émettral ko ko defal ko ko billet këram seq nañ liggéey ñu fay ma sama xaalis ma dem dama ko liggéey mu fay ma waaye fan yii li dama toog ci ginnaaw Mor gi jël sama benn vidéo yónnee ma ko. ba pare boole ci vocal ni ma sëñ bi dama doon déglu sa vidéo bi kontaan naa ci may naa la kër mu mucc ay fi may taxaw di wax noonu ba tontu ko ni ko ah, yàlla nga ko defal ak yonent bi ak Cheikh Tidiane yàlla la yàlla fay message baa ngi fi ci tàng tàng mu yónnee waat ma message ni ma yónnee ma sa carte d'identité léegi léegi léegi ma defar ko xam nga nit ku lay may yow nit ki daf lay may man ñaanuma ko yëg moo ni woon da ko doon sax ñaanuma ko nit ku lay may ba pare sawar ci moom moo ci sawar yàkkamti yónnee ma carte d'identité bi léegi léegi léegi léegi ma ma jël sama carte d'identité yónnee ko nit bu la defalee loolu ci sa biir mbokk te ñaanoo ko ko demoo këram dagaanoo ko ko nga ñëw fekk sa cousin boo xam ne baayam ak sa ndey ñoo bokk benn baay mu yóbbu ko màkk aw ma place bu gën a bu bu gën a bu gën a bu gën a porté seedee ko fii yal na ko yàlla fay yal na ko yàlla fay yal na ko yàlla fay waaw ci sama moom la ko jóge ay daka si yéen a bokk ndey sa maam waaw maamam waa Diop Mbaye mais Modou Mbaye Dior a ko jur dëgg la wallaay ndeysaan damaa daggoon nag waxi sëriñ bi xamul rek waaye yéen a bokk tey loolu mënta ñàkk